parce que ren bi daa nar a neex bu soobee na bi <laughs> sa neex ak këram ak ñaari dofam ñàkku dafa dof na melu yàlla la waaye mën numbe dafa réew sax ba mujj dof <laughs> ay waay ñu dem day neex kaay day neex sa neex ak këram day neex ah day neex ak jabaru xale leen mooy wayal am lu ma rek la ci woon rek. yàlla laa la waxoon. ah yàlla nga leew. eh waaw. ku ne yow ku ne lu lay mayee jabar ngay wël di taxawaalu. bu ma amee nga ma war a réglé nag. waroo ko réglé boo amee loo war a réglé mën nga yónni mën nga war a yónni ma réglé la. waaw waxuma ne sol sa jàllaabe. sol naa ko waxuma ne boo xëyee nga yëmbaxal. yëmbaxal naa ko. wala moo la tene toog xaal. ah doo doo ma ci bi bu gënaat. maa nekk di di wël doy wël boo wëlee boo wëlee gars yi jàpp la looy wax waaye dafa may jamono dañ lay jàpp moom nga xam ne fi la gars yi di yaakaaree soxna bi ne nga sel su boobaa fii nga fi jooy waaw waaw ah. waaw. bu tooga foog bu génnaat dégg nga. génn maa ngi nii soo laalee bu bu ko muulee. ba mu mën a dugg. njëkkanteel nga tëdd ci laal bi. Ah. dégg nga ah. njëkkanteel la bu mu la njëkk a dugg de bu nuy njëkkante rek njëkkante nga dugg ci néeg bi dégg nga. non non non non xaaral bu ñëwee nga génn. waaw kay toog kay toog. damaa bëggoon toog nii bul ñëw nag ma daw dugg. non da foofu toogal de bu ko muulee. bu ko muulee ci biir néeg bi. sama xel da ciy dem rek day gën a yàgg waaye toogal bu ko muulee bu ko muulee bu ñu jéggee ñuy ñëw rek waaw déedéet bu ko ba teg ko waaw waxtaanee la ba pare waaw bu ñuy dem njëkkanteel dugg si rek waaw waaw mu gars yi loolu la ñu wax de waaw waaw waaw waaw waaw jërëjëf jërëjëf kontaan naa ci yow de fayal naa la waaye ñoom fu ñu war a toll yàkkamti naa de yàkkamti naa de mën na dem na bu yàgg yàkkamti naa mën na amul fula sang nga ah sangu naa. saafara yi wala jox ko sangu naa ko ah naa lépp takk naa téere yi. ah tekk téere waaw ah, bu ko defee loolu mooy tax gars yi bu ñëwee rek caay ji laay mais dama la waxoon oh, naa bul. sol caay ji ànd tànn ñëw ma njëkkanteeg ñoom dugg ci biir néeg bi rek dagg ñooru caay ji bàyyi mu daanu noonu. waaw noonu laay loolu laay def. am na loolu laay ah, ah. ma de man lu ma amul fulla xanaa yoru téléphone. seet teet teet teet yàqamti naa de yàqamti naa de kii bu ñëwee ba ma jàpp ko ba bay dina xam kan lay wax paa waaye ñëw bu ñëwee dootu ko def mukk du xaalisu paa yu ñu gis rek jël ko oh. ñëw nañ ñëw nañ kii kan la yàlla ko lu muy bind nii na dal ak jàmm seddal ni ndox seddal ni ndox amul fula sa bopp amul mënatuma toog amul fula sa bopp mënatuma toog bu ma yeblu waay bu ma yeblu waay bu ma yeblu waay fasa kanam waay tamit bu ma yeblu waay jéggil ndox wiiru wiiru fasa kanam sàcc sàcc sàcc sàcc mel na ko ci bëggul dara la mel na ko ci bëggul dara naa ci dara nag bëgg naa ci dara waaw ah, mel na ko ci bëggul dara mel na ko ci bëggul dara te bëgg ci dara bismillahi jàmm waaw takka biru fenul ba sax ba sax xanaa kii day simba bismillah ah ayca ayo mu dool fursaga américain lañ la indil macha allah muur seet bi mu ñëw si. waay faafa xam xooli ma nu dañu koo muur mu ñëw ci biir kër gi tubaari kàlla may saala ñëw fekk si la yow mi nga xamante ne nii. ngay jàmbar maag xaasim ak Seynab loolu ca kaw ndax nag doom soo ko juree dangay ñaan yàlla mu màgg ba nga koy muur muy sëy tey loolu la ñu def tey te tubaari kàlla macha allah mii. tubaari kala nee la yow yaay baay yow yaay borom maami dameel yi yow boo sëyee da ngaa war a sëy boo sëyu da ngaa war a sëy yaay jeere ba bari doom ju mu dina sëy xale bu jaree dëkk dëkk dëkk dëkk te day sëy fu neex mbaa fu ko mbaa fu ko ay waay sëy rek loolu laa bëgg man sëy leer sëy rek wax ko ca kaw taxawal macha allah toog ko fii fii indi ngeen seet fi ngeen ko war a indee waaye fekk ngeen fi góor yàlla fekk ngeen fi góor yàlla goo xam ni mën naa leen a waatal ni yéen kii moo leen gën a baax anaconda a téeméer la ci néew. déet bul waxati loolu nag. anaconda jaan la bàyyi la anaconda jaan la. ah jaan la anaconda jaan la. góol góol dëgg moo nekk ni waaw. góor goo xam du daw. du toroxal jigéen. loolu lañ soxla du ko dóol. loolu lañ bëgg ci man saaga ndeysaan. góor goo xam ni. day nam namee jigéen. Mhm. lu mu am bokk ak moom. ndeysaan dina békk. xam lu tax muy békk. waaw lekk a naan am na kër yaayam ak faafam. ndeysaan loolu indi ko fi. Mhm. leen donc fi indi xam naa ko. Mhm. sa sa waay sa waay sa waay du ko du ko bàyyi fi na daa yàqal bu sa de fukki ndam ñangu sa banda la tubaari la gay daal gay gay gay gay jërëjëf gay soxna saa ngi nii tubaari kàlla macha allah ah. baayam ak yaayam yëpp yëpp nañu ma ah. mi ngi di wax nañ la ko jox nañ ko sa ko dina sëy tubaari kàlla macha allah dina sëy mm. tubaari kàlla nag am na koo ah, ah, am na ku ngeen yabaloon mu ñëw tubaali kala waaye mbiri dafa am nu mu demee moo taxit mm. ma ne la géwél ay sa ñu dem ñëwal moo ne mooy nekk ca yaay aywaay aywaay dañuy baaxandal tubarikala war nga koo def geer yaa nga ndaat gewel yaa nga ndaat geer yaa nga ndaat gewel yaa nga ndaat koo cooy mu ne maa la ba sàmm ku ne ma ta sengi ndaat ayca baax na jërë ngeen jëf ñaanku wax sa bàyyi nag mu yeewu ñu defu ñu teraanga ñibbi ah li ma yoroon jox na ko sa bàyyi ah li ma yoroon jox na ko femme bi doo ñoo xam ku nu mës a defal teranga tamit danga jox teranga. sampa bi li mu yoroon jox na ko samp jëla jëla affaire bi. jox na ko dama xaar dama leen rek xaar. jeex na jeex na bu ngeen teralul ñëw leen xam naa li ma xam ci kër gi. tay leen jeex na ñibbi leen amul teranga dootu am teranga di dem leen jeex na dem leen non du affaire yi toogul foofu. jeex na tas na tas na dem leen ñibbi. Fafa Fafa bul xaar de teel leen a fàttu na bul xaar ah, xolo teel leen a fàttu te fii yëpp leen fi jël fii yëpp leen fi leen kaay kaay bu nube dama dama kaay kaay may lu bi yëpp leen fi ñëw combat ci marché bi ko jox ko deux cent lu mu koy doyee ma jënd petit cola te dinjeel dinjeel dina dinjeel bu xaal xoola la fekk mu bu ñëwee bu naan xaas màcc rek bu ne nii rek xoola sonko nee ko ne xoola nii <laughs> waaw léegi nag ma. Hmm? dama leen maamam ci biir. ñu tëdd. dama leen tëdd. tey xaaral papa kër bi ngeen di tëdd. heure bi. dama leen tëdd. lan la ko tii sax dugg leen seen biir. yàkkamti nga sa dugg leen. waaw papa defal lànk de. dugg leen. ni mu demee la dugg leen. Eh. waaw dafa am mu demee. papa defal lànk de. waaw ba suba de waaw ba suba. ma koy caaw mi ngi selale mi ngi selale ki ngi selale ah. xamaa nga. pexe ma nu ma la pexe ma nu ma la. fii dootu leen fi dugg. ah déedéet dootu leen dugg. waa ñu ne ci mi ngeen def. waaw laa ñu ne cëram ak ñaari dofam ñàkku dafa dof na melu yàlla la waaye dafa réew sax